amicale bu faculté nag bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag kon mooy sakku rek ñu jëbal leen seen bâtiment bu yees rek bii ngir nag wàññi lim gu takku nag ci seeni wàllu amphithéâtre nag kon ñu jox seen ay njiit délai bu ñaari fan rek mooy rek yëngu yëngal kon ci kàddu étudiants yi ñoo na ci ak Moustapha Ndoye ci ndimbalu Pape Samba. xeer yi nekk ci biir amphithéâtre bi ci la ay étudiants di toog ngir mën a def seen cours. ci faculté des lettres et sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop place du am bu étudiants yi di jàng étudiants yi mer loolu ci situation bi sàkku ci kilifa yi ñu livré leen bâtiment bu bees bii nga xamante ni dañ ko tabax ngir yaatal seen faculté. tey jii c'est paradoxal parce que ñoom ñooy ne administration nee na ñun suñu faculté dafa fees donc mënatuñoo jël kenn ndax amatuñu place waaw bu fekkee mënatoo am place boo dugal étudiant. te nga am benn bâtiment boo xam ne mat na ñaari junne place du la ko teree ubbi ndax place yooyu ngay mbébét mën a am lii mooy li nga xam ne moom moo waral tey sunu toogaanu ñaxtu bii tey ci sunu bâtiment bi. ci biir amphithéâtre yi ngir mën a am place étudiants yi dañu dékku tàngoor bi di xaarandi professeurs yi. fii ñu livré leen bâtiment bu bees bi la ñu soxla ngir mën a toog étudiants yi dinañ dugg ci ñaari waxtu laata cours bi di commencer. pour ma am place bu ma toog damay ñëw fii 11h. di xaar ci biti comme ça ñi doon def cours suñu génnee ñu mën a buuxante dugg ci biir jàpp place toog parfois da ngay ñëw doo am photo gis nga étudiants yi ñu bëri ñoo ngi nii ci ay briques la ñuy toog man un jour def naa fi cours mais dama génn ci biti wut xeer ñëw teg ko toog ci. depuis 11h la ñuy ñëw fii pour am place mën a toog si kanam boo ñëwulee 11h boo ñëwee mu ngi nii suñu camarade fi ñu toog si suuf ngay toog léegi nag ñu ñu tijjil ñu amphithéâtre bi ñu commencé cours yi def parce que sonn nañ trop. ay conditions d'études yu baax la étudiants yi ak ñi nga xamante ni ñoo di délégué amical bi di sàkku ci faculté des lettres et sciences humaines étudiants yi ñi ngay wax autorités yi ñu livrer leen seen bâtiment bi may nañ leen ñaari fan ngir ñu réagir ci situation bi ñuy dund